yonent bii dañ ko bundu xatal ko fa bundu xataal jullit ñi xatal leen lor leen moo tax ñu génn kon dañ ko génne wala déet léegi nag rasulullahi bi muy génn néegam fekk nag giir gu ne ci xalaatu abu jahlin boobu ñu amee woon ca daaru wa mooy ay ponkal ay mbër yoo xamante ne kenn ku ne mu ngi gàddu ngànnaayam ñoom ñépp ñu dajaloo di fuglu yonent bi ci buntu néegam di xaar mu génn pour ñu dóorandoo ko kenn ku ne aw jaaseem pour mu faatu yonent bi nekk ci biir néegam di génn buntu ba tibb suuf jàng suuratu yaasin ba ca fahum siru na ji sànni leen ko ñoom ñépp ñuy nelaw yonent bi jaar ci seen kol yi génn yàlla mi nee na leen kan moo ko jàppale foofu ba mu génn mucc ca loola yàlla nee na man képp faqad nasarahu llahu is ba nga xamante ne axrajahu alladina kafaru benn état ba ngoog yonent bi dem na topp lëndëm gi fekk Aboubacar ma ngi koy xaar ca bit mu génn ànd ak bakar dem dem ba àgg ci xaaru sëwri muy xunt moomu ñu tuddee xaaru sawri mu dugg ci biir am na koo xamante ne mi ngi bokk ci giiru xuzaa ñu koy wax kurzum na alqamata moo dàqoon a topp tànk ñu woo ko waa Quraysh xëy suba woo ko ne Muhammad rëcc nañu fan la jaar fan la jaar ñu ànd ak moom ñuy topp tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kurzu ne jàkk tànk bi ne tànk bii de nuroo nag tànk ba nekk ca maqam Ibrahim ndax yonent bi dafa nuroo woon ak jéego tànk ak maamam mu ne xaw ma lu mën a xew da waaye tànk bii may gis nuroo nag tànk ba nekk ci wetu Kaaba ga ñu ne ko kon Muhammada mu ne leen beneen tànk bii de xawma doomu Aboubacar de waaye bu dul Aboubacar di doomam ñu ne kon ñoo ànd ñuy topp tànk yi di ko topp di ko topp ba àgg ci xunt mi ba àgg ci xunt mi kursu ne leen tànk bi ñu doon topp de fii benn moom dem na ci kaw asamaan wala dugg na ci biir suuf waaye fii la yem seenum xel mënu leen a jox ni nañu gëstu xunt yi fi nekk parce que tomp nañu tànk ba gisatuñu tànk wër wër nañu gisatuñu tànk ñu ne borom tànk bi moom fii la jeexaleeb tànkam bu nekkul ci jaww ji rek mi ci biir suuf te mënuñu kaa gis zannul xamaama wa zannal wa zannul ankabuuta ala xayril bariyati lam yan suj walam yaximi ndax wiqaayatullahi agnat an mudaafati min al duruuci min al utumi loolu wax bi muy wax yonent bi foofu léegi suñ boroom ne ah foofu kan moo aar yonent bi seen xel ya lan moo muur xanaa lenn ah Aboubacar am ci benn waay joo xamante ni ndeysaan bëgg na gaanuwaay dem colal di gaanuwaay waaye fa muy gaanuwaaye moo ngi gaanuwaay ci wetu xunti ma mi ngi naan ko yonent bi moom Aboubacar ne ko gars du ñu gis mu ne ko bu ñu doon gis duñ génne seeni awra <laughs> di di ñu di ko wane moom ñoom xamatuñ li xew ma tax suñu borom ne kon faqad nasarahu llahu ah saani yës ni ñaareelu ñaar ka mooy kenn kenn ka ñaar ña ba muy wax keneen is ba nga xamante ni saani yës nay ni ñaareelu ñaar is jamono ba nga xamante ni ah, ah, huma ñoom ñaar fil xaar yi ña nga ca xunti ma loolu état bu boppam la benn jamonoom la faqat nasarahu llah ñu am beneen jamono muy beneen is is yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana waa màkka topp lañu tànk ba gisuñu dara ñu ne waa ji daal dem na moom daal nee na mes ci kaw wala nee na mes ci suuf léegi dem nañu waxtaan daal di teg téeméeri giléem nekkuñu dabal rasulullahi gisal ñu ko rek yaa ko moom suraqatu nu malik fa tabarakallahu ah xool na foofu gisul waaye bàyyiwuñu ñu topp ko di ko topp ba ba mu ko debee ca yoon wa gis nga lan moo xew loolee mooy bi junudin lam tarawha wa ayyadahu bi junudin lam tarawha waaye itam ba ñu ñëwee di wër di wër di wër ba àgg ci xunti mi ñu ne xunti mii daal kenn waru fee dugg ndax lënd yii xunti mu yàgg la moom xam naa bi fi nit gëj a dugg kenn xamul kañ la moo tax mu ne bi Aboubacar tiitee jàqee ndax gis na ni wax na rasulullahi ne ko walaw nazara tax taxta qadamayhi la absarana bu kenn xooloon ci suufu tànkam rek dinañu seen yonent bi ne ko laa tahzan inna allaha maana lan mooy sa xalaat aboubacar yow aboubacar ci ñaar ñoo xamante ne ke ñetteel mooy yàlla la tahzan ba nga xam yàqul mi ngi wax li saaxibi yi àndandoom ba moo tax li fii la boroom xam-xam yi ne saaxib bi wóor bi nga xamante ne képp ku weddi ne saxaaba yonent bi la yéeféer nga mooy aboubacar is yaqul li saaxibihi alquran ko nga wax alquran na ko wax taxzan bul jàq laa taxzan lan ngay ragal laa taxzan dalalal sa xel ndax inna allaha lu wér péng ni yàlla de mi allah maanaa mi ngi ànd ak ñun ci ak ndimbalam moo tax ba mu waxee loolu fa anzala daal di wàccee allahu bur yàlla sakinatahu ak dalam ak dalalam alayhi léegi nag boroom xam-xam yi ak mufassiru nay dem nañ ci demiru ji ñu ne waaw ci kan la dem ndax ci yonent bi la dem ñu ne waaw waaw ci yonent bi la dem ndax moom la yàlla jox tranquillité bam mën a dalal ñu ne waaw waaye nag faa la wax de gannaaw loole fa anzala allahu sakinatahu alayhi ñu ne waaw kon xanaa saan yes nay ni bala li saaxib bala moom mi xelam delul woon moom mi amoon xusnu ba yonent bi di ko dal fa anzala allahu sakinatahu yàlla daal di wàcce ak dalam ci aboubacar moom it mu am tranquillité waa wa ayyadahu ñu ne damir boobu moom ci yonent bi la jëm mu dëgëralee moom yàlla yonent boobee mu muy Seydina Muhammad bi junuudin ci lël bi junuudin ci ay armée bi junuudin ci ay militaires yoo xam ne yéen doomu aadama yi lam tarawha te la ngeen leen a gis te mooy ay malaaka nga ni lënd gis nañu ko waaye ñun bàyyiwoo ca xel te loo bàyyiwul xel yàq ko gisul yéen a yem sun borom ni am na lu xew de wa jaala kalimata alladina kafaru sufle wa kalimatullahi dafa bokk ci programme li mu nar a def aboubacar ba muy génn moom rek <laughs> seydna muhammad ba muy génn moom rek la moo ko bakar xanaa amir ibnu fuhayra mi nga xamante ne moo nekkoon mbaa yàlla aboubacar daan sàmm di leen jur gi di di di di di di di di effacé asma bint abi bakr zatu nitaqayni mi indi ñam yi ah ñuy ratt ca meew yooyu ak xanaa abdullahi ibnu urayqat mi nga xamante ni moom moo leen doon tegtal yoon wi ñu war a jaar te du tedd kooku nekkul woon ab julit ab juif la woon waaye ku xamoonu yoon la sun borom ni kon ñoom ñaar ñi ñoom ñoom lañ mat a wax mu ni fa and ba ay yadahu bi junudi lam tarawha moom yàlla wa jaala mu def kalimata na kaddu gaañ a nga xamante ne kafaroo woo weddi nañu yàlla muy woote muy daawatu shirki muy baatu yéeféer woote gi lay woo nit ñi ñuy bokkaaleeg yàlla moom yàlla mu def ko as suuf laa mu féete suuf di lu ñuy not wa wa kalimatullaahi yàlla kàddug yàlla di kalimatu shahaada di laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah yàlla def ko hiya moom al ulya muy féete kaw di not wallahu bur yàlla azizun aji not ci nguuram la xakimun ko xereñ la ku boole ñaari yooyu nag kenn mënula la daan koo dajeel duma ko te doo juum waaw ku not ñépp te doo juum misaal naa leen ko ah roi des arènes yaakaar naa Modou la su dajee woon ak yebbu ma ko ku mel ne asgey ah su fekkee ni Modou Lo juumul sawaay dina des daañ ko wutali nag waaye yàlla nag aziz la ba pare xakim la waaw aziz la ba pare xakim la kuy not la te du juum waaw ndax ku xereñ la buur bi nee na comme xamal naa leen ni yéen dama leen a wax ne ànd leen ak yonent bi ngeen dem xeexi waaye nekku leen li koy dimbali li koy dimbali man man la ndax wa man nasru illa min indillah te andil naa leen ñetti jamono yoo xamante ne maa ko fa dimbali yéen bokku leen ca kon nag infiru fañ leen infiru buur leen infiru jóg leen xifaafan wa siqaala dafa am lu ñu tuddee muqaabalatul jamci bil jamci bi mu ne infiru xifaafan wa siqaala xifaafan jamcu la jamcu xafiif la siqaalan jamcu saqiil la mooy képp kenn ci yéen moo xam muy woyof moo xam muy diis na jóg dem képp kenn ci yéen moo xam muy oyof moo xam muy diis léegi nag oyof bi moo xam sawar la tudd diis bi ñàkk sawar la kon nag nga sawar ak nga ñàkk sawar jógal dem moo xam oyof bi mooy firi néew doole diis bi eh, di am kàttan bu mu doon jógal dem lu dul ca lañ settee moo xam oyof bi mooy firi xaw a ñàkk dëkk bi jàpp la diis bi moom oyof bi mooy eh, eh, am koom-koom mooy dëkk bi fa law diis bi mooy dara daa jàppandiwul lu manti doon infiru xifaafan ngeen di way woyof wa ak ngeen di way diis jug leen dem léegi nag am na ca settee ca laysa ala leen ngeen nangoo jihaati dem leen jihaati bi amwaalikum ci seen alal yi ba mat sëkk wa anfusikum joxe leen seen jëmm yi jihaati ba mat sëkk ngeen def ko fi sabilillahi ci yoonu yàlla zalikum loolee de bu ngeen ko defee xayrun moo gën moos lakum ñee leen in kuntum jéem nekk ngeen la a di xam su fekkoon ne nekk ngeen di xam ko ne moo gën kon du ngeen diis diislu suñ borom ne bañ jógee di dem nag am na ay xew-xew yu xew mooy naafiq ñoom daal kenn ku ne nee na ah moom daal doy na waar ñun daal ñoo ngi fii tàngoor wi nga jëm ci dëkk boo xamante ni mosuñu fa dem xamuñu fu ñu jëm te ñun barki démb Njaay lañ jóge Taif coone bi jàpp ñu lañ fa jële woon lépp joxe nañu ko ñun yoruñu dara naafiq yooye nag yàlla di wax yonent bi salaa salaam law kaana bu fekkoon ne li nga leen di woo jëme leen ca bu nekkoon aradan di njariñ xariban lu jege loo xamante ne jël ko jege na ah muy am ko mu ñu dem jéeg ñoom ñëppay fëx wa safaran ak tukki boo xamante ne xaasidan bu diggu doomu la bu soriwul kon de la taba uka daañu topp la ndax wute ganima bi ndax jaral na leen ko ndax ñoom mataa rek moo leen di yóbbu arad wax naa leen al arad ma yaqumu bi gayrihi ñoom au ñu topp al jawhar maa yaqum bi nafsi yi waaye ñoom soxlawuñu ko arat bi leen soxla mooy loo xamante ne moom yàgg yàgg yazul day dañ walakin wante li nga leen woo <laughs> daa metti moo tax ñu toog walakin wante ne ba udat dafa sori alayhim ci ñoom a ashuqatu yàggaayu coone bi mooy siifas coone bi coone bi day dure ay <laughs> yàgg mar mu metti ñett ñooy bokk giléem di toggoo fas wala giléem bu kiy doxee ba sonn ka waroon wàcc kookee war ñaar ña dox bu kenn ko so nekk dem nañ mar mi jàpp leen ba nga xam ne dañuy mujj ren di giléem di weñ ndox moom pour am ndox mbàq gi ndax giléem dafa am réserve ci biir mbàqam baqudat alayhimu shuqqa coono ba moo metti te yàgg moo tax ñoom wa sa yaxlifuuna gis nga daañu giñ saar bi moo ci ëpp na ci alquran ndax ci naafiq yi la nekk moo tax wa sa yaxlifuna daañu giñal la billahi yàlla boo ñibbisee kon lii yonent bi yàlla di ko xibaar amagul yàllaa ngi xabal yonent bi boo déparé boo demee bay ñibbisi ñoom daañu la kar giñal la te daañu la wax lii au ñoom ñu am xel xam ne aaya wàcc na ñu bañ ko def waaye mënuñu ci dara fokk def nañu ko boo ñibbisee wa sa yaxlifuna salxat dañ laa giñal naan ñun de lawis tataana suñu àttanoon suñu manoon suñu amoon kàttanu génn kon de la xaraj naa kon de ñu génnoon ma akum ànd ak yéen ah dem xeexi yaa rasulallah lool daal xamal lool suñ borom ne cim ñoo man a fen ba prétexte di giñ seen giñ yooyu tax na ak wax loolu dëgg jooju tax na yuhliku na ña ngay alak anfusahum seen bopp xamuñu loolu xamuñu ne wallaahu bur yàlla ya'lamu xam na ne innahum wér nekk na ñoom la kaasibuna way fen lañ waxuñu dëgg buur bi nee na afa allahu anka lima azinta lahum yàlla yonent bi dafa am dayoo bu kawe kawe kawe kawe ci moom ba tax na même yonent bi bu defee ci ijtihaadam ahsan am fi lu gën a rafet am fi même bu ko yàlla di tudd xasanatul abraari sayyiatul muqarrabina avant yàlla li mu def yàlla ne ko baal naa la ba pare te waxul la mu def soo ko ni lu tax nga def nangam mooy baal naa la waxu ko ci li nga def de mais baal naa la bàyyi ne lu ne ko soo ko ne nag lu tax nga def nangam fala fala fala fala dayoom toll yonent bi foofu la dayoon toll fa yàlla ndax baatu afa foo ko gis rek xamal ne am na lu muy far mooy am na lu xew li xew moo di dafa am ñu ñëwoon ñu bëri ci yonent bi salaa nan ko ñun de dañoo am ngànt kii ne ko man de wax dëgg yàlla suñu tool yi kenn ne ko ah man de yaram wi daa neexul kii ñëw am koo xam dafa ñëw ne ko man de ah moom daal yaram wi dafa xaw a diis te dox bi daa metti ku wax rek yonent bi ne la am nga ngànt ku wax rek yonent bi ne la baax na man ngeen a toog bu leen dem yàlla ne ko pour pourquoi nga def loolu li tax mu yàlla bu daf nekkoo ko da ngaa waroon a bàyyi même boo leen joxul woon ngànt ñoom dañuy toogal seen bopp da nga leen waroon bàyyi ñu weeru léegi nag suturaal gi ngi leen suturaal ci jox ngi leen jox ndigal ci loolee la ko yàlla nekkul lu tax nga def ko ci kanam te yàlla itam ci biir da nga gis ni jox na yonent bi dëgg ci li mu def ne li nga def e pourtant ñoom bu ñu génnoon it dañ la yàqal ci yoon wi kese kon toog la bi nga leen toogal itam lu jaar yoon la waaye joxe ndigal gi pourquoi nga def afallaahu moom yàlla de jéggal na la afallaahu an ka yàlla jéggal na la de yàlla baal na la toppewu la dara dara dara waaye nag yaa rasulallah li ma azinta lahum ana lu tax nga jox leen ndigal ci ñu toog lu tax nga jox leen ndigal dangaa waroon a bàyyi ba ñu weeru xataa yatabayyana ba mu leer nañ ba wér péng làkk ñeel la allazina ña nga xamante ne sadaqu dëggu nañu ci ngant lu ñu am lu wér wa nga xam bii alkaasibiina ña nga xamante ne waxuñu dëgg ca seen ngànt lañu am dara du ca ngànt lu wér waaye maa ngi lay xamal ni ñiy wut ngant ñépp mooy ñi gëmul yàlla la yastazinu ko du sàkku ci yow ndigalal toog di wut ngànt allazina ña nga xamante ne yuminuuna gëm nañu billaahi yàlla wal yow mi ak bis ba al axiri bu mujj ba dégg nga di la jox di di di sàkku ndigal a toog di wuute an yu jaahidu ci bañ a jihaadi bi amwaalihim ak ci seen ci seen alal ya wa anfusihim ak seen jëmm ya ndax wallaahu bur yàlla alimun xam na bu xam bu wér péng bil muttaqina way ragal ña yàlla innama yastazinuka naka du sàkku ci yow ndigalal toog bañ a xeexi allazina lu dul ña nga xamante ne laa yuminuuna gëmuñu billaahi yàlla wal yameeg bis ba al bu mujj bi teg ca war taaba di sikk sàkka qulubuhum seen xol ya fa la sikk nekk parce que bu ñu demee daañu gañe bu ñu demee daañu ñibbisi ñu ñibbisi inna buyutana awra suñ hmm? suñ néeg yi wax dëgg yàlla suñu làkku néegi miir yi daa am yu daanu te mën nañoo wuute suñu njaboot lu nañu ñu koy laytu suñ borom ne fa hum ñoom ñu nekk na ñuy dengi dengi di way gëlëm fii rey biim ci seen sikk sàkk sa xam comme sikk bi ci xol bi la nekk ah te itam xel mi nekk ci kaw sikk sàkk ba nekk ci diggante di jaabante xol baa xel ma rek fahum fii rey bihim yataraddadun sun borom ne yaa rasulallah yow de da ngaa amul sax ak seetlu waaye boo amoon ak seetlu tuuti da nga xam ne sa gaañ yi dañoo waaju sax a dem ndax kuy jihaati da nga am loo ko waajale mooy daañu la gis nga wut sa ngànnaay dem di daggiwaat wut sa mbubb koŋ defaraat saw fas nangam ak nangam waajtaay ah waaye ñoom dañoo sax waajul dañoo sax moo tax mu ni walaw araadu bu fekkoon ne namm nañu alxuruja ak génn ànd ak yow rasulallah kon de a aaddu doon nañu waajal kon doona doon nañu waajal la hoo ñeel génn ga uddatan ak waajtaay kon nee na kon daañ ko waajal ak waajtaay walakin wante kariha llaahu moom yàlla nëmmul in bi aasahum seen génn ba tax na fa sabatahum mu tàyyeeloo leen tàyyeeloo googee yóbbu leen ñuy buut buutlu moo tax wa qiila neef na leen uqudu ma alqaaidiin uqudu ma alqaaidiin gis nga mu tëgg ko ci siixa ala ma lam yusamma faailuhu ndax ñi leen di toogloo dafa bëri am na ñoo xamante ni la leen toogloo mooy seen moroom mu toog moo fexe wax leen ba ñu toog am na koo xamante ni soxnaam xamul nu mu koy def moo ko convaincre ci kër ga ba toog loo ko am na koo xamante ne dafa ñëw ci yonent bi laytu ba yonent bi toog loo ko am na koo xamante ne bëggul nooyu lu neex bëggul dem ca tàngoor ba looloo ko toogloo moo ne ko toogal am na koo xamante ne itam seytaane ci boppam moo ko jax-jaxal ne ko toogal comme ñi wax toogal toogal yi dañoo bëri mu tëgg ko ala sirati ma lam yusamma failuhu ñépp dugg moo tax wa qiila neef leen uqudu toog leen ma alqaidina ànd ak way toog ja mooy alqaidina nag mooy ña nga xamante ne mënuñoo xeexi almarda wa nisa wa sibiyaan bur bi nee na law xaraju bu yàlla dogaloon ñu génn fiikum waxul maakum ñoom seen génn baaxul xaraja fiihi wa xaraja maa bokkuñu boobaay dañuy génn mooy dañuy ne ndax fi zarf bi donc dañuy wootee law xaraju fiikum kon dañuy nekk ci seen biir bu fekkoon ne génn nañ nekk ci seen biir kon it wallahi ma zaadukum du ñu dolli leen mukk illaa xabaala ndere ak yàq ndere ak yàq kon yonent bi lam leen jox ndigal fii yàlla jox na ko fa dëgg law ah law xaraju fiikum ma zaadukum illaa xabaalan kon kay yonent bi moo yey na leen toog leen te itam bu booba wala aw daaw daañu gaaw daañu gaaw xilaalakum dox ci seeni diggante ak ràmbaaj ba yabxuuna daañu sàkku ñeel leen al fitnata ak fitna ak nooneel seen biir ba daanaka yéen même bu ngeen demoon xeexi du ngeen am dara kon seen toog daa gën la aw daaw daañu gaaw ah al idaa mooy gaawu rappat bu giléem di def buy torote daw noonu te njaabul loolu mooy al ida bu defee loolu mu def ko ci istiaara bi hmm. istiaara tabiiya wala awdau xilaalakum yabguunakum alfitnata wa fiikum te itam ñaar am na wa fiikum nekk na ci yéen tukke na ci yéen sammaauuna lahum xam nga sami'tu lahu wa sami'tu minhu wa sami'tu anhu ñett yu bokkul la xarfu jar yi rek mooy changer affaire yi léegi nag eh, eh, yàlla di wax yonent bi ne ko gis nga ñooñu da cee bëri ñoo xam ne dañuy déglu dañoo am ay xarit ñoo xam ne eh, yéeféer yi ak yahuud yi ak naafiq yi am nañ ci ñoom influence ba dañu leen di déglu lu ñu leen sant loolu la ñuy doxal ci seen biir samaa'una lahum mooy beneen bi itam samaa'una lahum dafa amaat beneen maana mooy samaa'una yaani li saalihihim moo di ñoo xamante ne dañuy nekk ci seen biir di déglu lépp lu xew ci xare bi loo wax loo def lu ñu def kenn lépp buñ dikkee dañuy mel na rajo nettali ko yéef gaañe mu ne ko kon nag seenu toog ba tey moo gën wa fiikum sammaauna lahum bur bi nee na mm, wa wallaahu bur yàlla alimun aji xam la mu bi zaalimina way tooñ ni laqad ibtaxawu dëgg sàkk woon nañu ñeel la yaa rasulallah alfitnata jéem la rey ci Médine jéem la fexeel jéem la gàllankoor min qablu la njëkk xew-xew bii di am ah ñoom waqallabu ñoom naafiq yi waqallabu wëlbati woon nañu al umura mbir yépp làkka pour yow ah waqallabu laka al umura xam nga bi maanaa maanaa mi gën a jege bu ñu ko mën a misaal waqallabu laka al umura mooy yéen ñu ngi dem léegi-léegi di dem ndakaaru ah boo rombee lu mel ne Tiwaawan da nga gis ñu teg màngo jooju teg ko ci ay peñe nga seen màngo ju rafet ji mu du moom ngay jënd fekk na daa xóot màngo ju màngo màngo ju ñaaw moo nekk ci biir ñu jël màngo ju rafet teg ci kaw soo jëndee ba àgg dangay xam ne ñoom waxal la bu lakkal umuura mooy dañ laa wëlbatil mbir mi dañ laa wëlbatil lu ñaaw li féete ko suuf jël lu rafet li tegal la ko ci kaw mu ne ko yaa rasulallah pour nga dégg dëgg-dëgg ñoom naafiq yi li ñu def ak yonent bi loolu rek lañ def ak yonent bi mooy bu ñëwee melokaan bi day rafet wax ji day neex doxalin bi day rafet yàlla nee na fekk na la ca biir boo ko jeqar bee rek bis boo sottee peñe bi rek day musiba ngay daj moo tax waqal la bu lakkal umura bur bi nee na xataa jaa ba dikk alxaqu ndimbalal yàlla ba tax loolee ñu doon fexoon loruwa wa zahara feeñ tedd nga amrullahi mbiru yàlla muy diineem ji wa ñoom kaarihuna ñuy way naqarlu loola moo tax ñu dugg si ci zahir waaw wa minhum tukki na ci ñoom man koo xam ne yaqulu dana wax naan la isan ah yaa rasulullah ewaay eh ewaay eh jox ma ndigal waay eh, may jox ma ndigal lii ñeel na ma toog may ma ma toog mooy aljadd ibnu qays ndax wala mu ne ko wala taftani wala taftini bu ma bu ma teg musiba bu ma teg naqar yow rasulaay xam nga ni man awma sago ci ci ci ci ci ci ci annisa mooy jigéen daal man awma ci sago te xam nga ni buñ demee foofu ñoom ay banaatul asfar lañ muy muy ñooñu dañoo xaw a mel yenn melokaan yi su ma demee xeex yi tee ma toog fa léegi bàyyil ma toog rek yow rasulullah al jadd ibnu qays loolu la wax yonent bi salaa muy dégg maa ko izan lii wala taftinii loolu mu fassir bi wax bi ko yonent bi nee nañu dem yàlla ne ko alaa ñoom eey waawee yëgaloo ni saqatu rot nañu ñoom fil fitnati ci fitna ba pare xanaa xamoo ne wa inna jahannama naka safara jahannama la muxiitatun aji peeg la mu bil kaafiriina way weddi ña amuñu fenn fuñ mën a daw ba rëcc yaa rasulallah in tusibka njéem dikkalat na la xasanatu ndimbal ak ndam te da leen di naqari ñoom wa in tusibka njéem dikkalat na la wala dal wàcc ci yow musibatun ak tar-tar wala boog ñu xaw am ñu ñu laal ci ñi nga àndal ba mu tudd lu mel ne defet nee na bu booba yaquluuna dañuy wax nan a waay waay waay xad axas naa dëgg ñun kat wutoon nañu jàpp jëloon nañu amranaa sunu mbir min xad axas naa amranaa ñun kat jëloon nañu sunu matuwaay min qablu la njëkk lii di wàcc ci ñoom moo tax demuñu woon su ko defee au lieu ñun tiislu li la dal ñoom kay wayata wallaw na wayata wallaw ñu daal di wëngee ñu wëlbatiku wa mbir moom ñoom farixuuna ñuy kontaan bay bëgg bay ségéréwu ci li la dal yow rasulallah bu dara dalee yonent bi ñu kontaan fu yonent bi amee lu jë jëm ci ndam ak mbégte mu naqari leen ndax lañ ca bokkul suñ borom ni wax leen yaa rasulallah leen lépp lu ma dal lépp lu ma ñeel daa fekk mu nekk ci programme bi yàlla xul wax leen ne leen leen yu siibanaa du dal ñu mukk mukk mukk dara dara dara maa ma ndere la nga xamante ne kataba programme na allahu bur yàlla dogal ko lanaa ñeel ñu pour mor ñu dal kese ndax huwa moom yàlla mawlaana mooy aji méngoo sunu mooy aji dimbali sunu te wa alallahi ci yàlla rek rek rekk fal yatawakkali lay wakkilu almuminuuna way gëm ni qul wax leen ne leen hal tarabbasuuna bina illa ihdal xusnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum allahu bi adamin min indi aw bi aydina fa tarabbasu inna maakum mutarabbisuun yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñoom jàpp nañ lépp lu la dal ñoom ñu ni xamoon nañu ko ba jëloon nañ seen matuwaay nang leen xam ne li leen di daldi wax leen ni leen ñaar rekk la ñaari mujj kese la mooy dem xeex yi am ndam dellu siwaaleeg bakkan ñu am ndam lislaam am doole loolu mujj gu rafet la wala ñu dem des ca xeex ba mooy ñu rey ñu fa bu boobaa ñu am shahada dem aljana am na beneen bu ko ñettee la dem nibbisi am nga ndam dem des fa am nga ndam ndax aljana nga jëm am nga shahada moo tax wax leen ne leen xul wax leen ne leen hal tarabbasuuna déet ngeen di mën a xaaru déet ngeen di mën a muñandiku déet ngeen di fuglu binaa ci ñun illaa ihdal xusna yay ni lu dul benn ci ñaari mujj yu rafet yii dañoo am lu ñu tuddee xasan am lu ñu tuddee ahsan bu dee góor ñu am xusnaa bu dee jigéen mu jël xusnaa ba tas niye ko ne xusna yey ni benn ci ñaari mujj yi gën a rafet benn bi moo di lan an nasru benn bi moo di ash-shahaada jeex na waaye nag ñun wa nahnu ñun yéen ñu natarabbasu ñoo ngi muññadiku bikum ci yeen ñaari mujj yu bon ñaari mujj yu bon yooyu ba ca njëkk moo di an yusiibakum bu bu bu bu wàccee ci yéen mooy bu dabeet leen bu daleet leen an yusibakum bu mbugaleet leen jotale leen mbugal leen allahu yàlla bi azabin ci mbugal min indihi bu tukkee fa moom muy benn aw bi ay diina wala mu xiirtal leen mu jël ñu xiirtal leen ñu ci yéen ñu duma leen ñu lor leen xeex ci xeex ak yéen kon nag basu xaar leen ci ñun loolee innaa naka ñun itam ma a mutarabbisuuna way xaaru lañu itam di muñandiku di fuglu li leen di dal ma akum ànd ak yéen qul wax leen ne leen anfiqu dafa nekk lamar bi maanaa xabar anfiqu la ngeen depaase moo xam loolee tawaan ci anam ak coobare ngeen ko defee aw kërhan wala ci anam gu leen neexul ngeen ko defee ndax amu leen ca sago buum ci doon lan yu bala deful nangul ko minkum tukkee ci yéen la ngeen dépensé ndax lan sun borom ne wama mën a ahum dara terewu leen ñoom an tuqab an bala buñ nangoof wala an yuqbala buñ nangoof minhum ci ñoom nafaqaatuhum lañuy ñuy ci wàllu lislaam illa annahum ah waaw innakum ndax yéen kuntum dangeen ngeen nekk xawman di aw nit faasiqiina ñu génn topp te nag bépp jëf bu tegewul ci ngëm yàlla doo ca am payug yàlla alaaxira njëriñoo sa jëf alaaxira dafa am benn chart moo di nga gëm yàlla moo tax mu ne wa maa mën a am dara terewuleen ñoom an bala bu nangoof minhum tukkee ci ñoom nafaqatuhum seen dépense ñuy financé ci yoon yàlla illaa annahum lu dul sababu naka ñoom kafaroo dañoo weddi billaahi yàlla wa rasuulihi ak yonentam ba teg ci wala na duñu dikkee duñu jooxe asalaata julli illaa wahum ndere bu mbir moom ñoom kusaalaa ñuy way tayyeel bu dee ñoom képp kott ci seenum néeg duñu julli buñ gisee kuy julli la ñu soog a julli ànd ak tàyyeel ngir ngistalu bu yonent bi dee julli ñu nekk ci biiram dañu julli ngir bañ ñu ni leen du ngeen ay jullit la ñoom kay duñu joxe julli lu dul ci anam ak tàyyeel teg ca walaa yu walaa yunfiquuna duñu joxe du ñu dépensé benn dërëm illa wahum ndare bu ñoom kaarihuuna ñuy way naqarlu naan man kay sama téeméer bi ak sama ñaar téeméer ya ca dem damaa xamul nu ma doon def rek xaw ma xaw ma nu ma nu may def ak yonent bi wala gars yi di ma xool moo tax yàlla yow rasulallah falaa tuujub ke bu mu la yéem bu mu la yéem mukk am wàlluhum seen bëri alal ya bu mu la yéem wala awlaaduhum seen bëri njaboot bu na te ñaar yooyu ci xéewali àdduna la bokk ñoom am guñ ko am itam bum la yéem xamal ni bëri googu lépp ak jey goo xamante ni duma yaa nar metti rek innama yuridu naka nammul allahu bur yàlla li yuazibahum lu dul mu mbugal leen rek dolli seen mbugal bihaa ci alal jooju ak doom yooyu fil xayaati dunya fil xayaati ci dund gi ak dunya gu jege njee walla wala ju kees ji hmm. ngir la ñuy ci coonaak ay masaayib teg ci bu ñuy faatu wa tazhaqu génn anfusuhum seen ruux ya wahum mbir moom ñoom fekk leen kaafiroo na way yéeféeru ndax bu ñu amul naqar ci seen alal amuñu naqar ci seen njaboot dañuy dal xel di jayu ba bu dee dikkee di leen di fekk ñu nekk ca kéeféer ga sun borom nee na fa leen fekk wa yaxlifuuna daañu waatal la billahi ci yàlla ne innahum naka ñoom la minkum ñi nga bokk ci yéen foo leen wax ñun ñun ay jullit lañu te yàlla nee na wa maa hum déet ñoom minkum ñuy bokk ci yéen de bokkuñ ci yéen de walakinnahum wante nag ñoom dañoo nekk xawmun aw nit rek ñoo xamante ne yafraquuna dañoo mboqat alfaraq yafraquuna dañoo mboqat waaw ñu ngi ragal foo leen fekk rek dañoo ragal ragal kese ragal ñu wax leen dara wa ragal ñu dal ci seen kaw kese moo tax ñu naan ñu ngi bokk ci yéen waaye bokkuñu ci yéen de bala nga ko wan a xam rek. ñu woote xare bi ba ñu yore seen jaasi ba sol seen bubu koŋ yooyu ba war seen fas yooyee ñu gest gauche gestu droite gisuñu la ya rasulallah gisuñu kenn xool leen kon nee na bu ñu amee fu ñu làqatu fa la ñu toog ba xeex bi jeex ñu génn ànd ak yow moo tax mu ni aw nit ñu mboqat lañu law yajiduna bu ñu amoon bu ñu amoon maljaan benn wéeruwaay fu ñuy wéeru moo xam tata la moo xam montagne la fu ñu mën a daw làqatu fa làqatukaay aw maxaaraatin walla ay xunti ay xunti ah aw mu daxalan wala ay tunnel ah aw aw mu daxalan wala ay tunnel kon debb boobaa la wallaw daañu ne wël bët na daw ilayhi wutali ko te te bu ñuy dem de bu ñuy daw ñu ànd ak seen sago de wahum mbir moom ñoom yajmaxuuna xam nga yajmaxuuna mooy lan xam fas wu màmm ah aljimaax mooy màmm fasu màmm moom moom mii daw àndul ak sagom waaye itam ña kaw saret ba itam de yàlla ci yàlla musal mas nañoo dal benn yoon nag bu méttee méttee waaw booba dañoo ñu ngi jàng kayit réunion am ndeysaan man ak sëriñ Moustapha Mbaye rahimahullah ak sëñ Daouda boobu ñu ngi ci bàyyi njega ñu ñëw réunion jumelage takk suñ fas ñëw yàlla dogal réunion bi jeex mu xaw a guddee ñu war fas wi biñ demee ba génn ngidi la rek ñun daal jékki-jékkuñu rek fas wi moom kenn xamatul lu xew moom am riir a ngay dégg waaye la ci xew lépp daal kenn mënu ko wax maam mu baaxul mu ngi noonu moo tax mu ni lawal law ilay wow mbir moom ñoom yej maxuuna ñuy way maam mooy gaaw goo xam ne moom daw ga amul sago léegi nag mi ngi bëgg a dem ci yonent bi sallallahu alayhi ci côté sarax yi mooy yi muy joxe di ko séddale léegi lu ne lañ ci yàq rasulullah léegi-léegi am ku dem am na ku mas a dëgër fit ba ni yonent bi yow sa bopp maandu ci ni ngay séddalee yonent bi ne ko ba ma maanduwul kan mooy maandu ndax yonent bi salaa salaam ni muy séddalee day fekk koo xamante ni am na daraja ci aw nitam te amul lam koy jox du bokkul ak keneen ndax responsabilité tey bokkuñu mu fekk koo xamante ni yonent bi xam ne ni kii ak ñàkkam fii la toll mu joxe ko lu toll noona su ko defee nag ñoom ñuy ngun nguni ci suuf rek ku ci am ku tombenteeg nag sa bis yonent bi jox la nee na daanaka da ngay waxtu ba nga àgg sa kër naan kii li muy joxe xanaa moom daf du ko seetlu waaye nag léeg-léeg nga ñëw fekk ku la gën a soxla yonent bi jox ko xañ la bu baa nga nekk di ñaxtu naan ha lu tax joxuma moom daal diw rek lay jox yonent bi ne yàlla yàlla mi ngi naan ko minhum tukki na ci naafeq yi man ñoo xamante ne yal mizuka da lay jëw ci sa teewaay alamz mooy jëw nit ci teewaayam waylul li kulli lu lumaza di la ayibal fi sadaqaati ci séddale sarax yi fa in utu njeem joxeef na ko minha tukkee ca sarax ya ñoom raddu man jaa tax dafa topp maanaama raddu ñu gërëm kontaan waaye wa in lam yutam ndéem joxee su leen ndéem joxee su leen min ha ca la ñuy séddale isan am kon ci mbetteel ca saasa duñ la ko xaar ba ñibbi de hum ñoom yasxatu na ña nga mer ba fut di sàng suñ borom ne walaw annahum su fekkoon ne naka ñoom raddu gërëmoon nañu dàkk gërëmoon nañu ah kontaan ma ca la nga xamante ne ataahum jox na leen ko allahu bur yàlla wa rasuluhu ak yonentam ci séddala ganaim yi wa qaalu teg te ñu ni ñun daal naa doy nañu sëkk allahu yàlla am nañu yàlla te moom yàlla moomee sa sal salxat nañoo jox allahu yàlla min fadlihi ci tukkee ci ngëneelam wa rasuluhu ak yonentam moom it dinañu sedd lu ñu am ci sarax ak ganima yi inna naka ñun raaxibuuna lu ñu mën a ñàkk way xeemeem lañu ilallahi jëm la fa yàlla suñ waxoon loolu de kon de la kaana dana gën ci ñoom moo xasaf jawaab bi suñ borom ne leen salax yi dafa am boroom léegi nag boroom yi mooy ñaata mooy juróom-ñett ñi yàlla di lim juróom-ñett ñooñu nag ay melokaan lañu kon nag sarax bii mooy saraxu azaka ñi ngi bëgg a lim ñi nga xamante ne ñoo war a lekk azaka ñu bàyyi ko xel sun boroom moo ko melal boppam ne innama sadaqaatu doonul di ñeel dara ci azaka yi ñu koy wëlbati jëme ci ñoom lil fuqaraa i lu dul fuqaraa yi ñii la ko tënk al fuqaraa mooy ñi nga xam ne ñu ñàkk lañu amuñu dara ndax dañ doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sarax yi da koy denc pour boppam ak pour njabootam mu bëgg leen a xamal ni sarax yi ñi ko moom ñii la moom ñu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi duñu lekk azaka yooyu kon nag xanaa war naa mën a set ci li muy séddale ndax moom du ko lekk azaka yi bu dajaloo ba pare ku bokk ci bani hashim ci ngir imam malik doo ci lekk ku bokk ci bani hashim ak bani bani bani abdil muttalib doo ci lekk ci imam shafii yi xilaaf la ci diggante imam malik ak imam shafii kon ñi ko moom mooy fuqaraa yi mooy ñi nga xamante ni amuñu lu leen doy wal masaakin ak miskin yi léegi nag diggante miskin ak faqiir kan moo gën a ñàkk bu dee mazhabu shafia yi mooy faqiir moo gën a ñàkk miskin ndax man ko teg ca laaya ja ca suuratul kahfi ama safinatu fa kanat li masakina yacmaluuna fi lbahri fa aradtu an acibaha wa kaana waraahum malikun yaaxuzu kulla safinatin gasba mu ni ay miskin la yàlla melal foofu te ñoom am nañu gaal kon imaam Shafii ne kon ah faqir moo gën a ñàkk miskin miskin mooy ko am lu ko doyul léegi nag lu ko doyul jooju doy doy bi dinaa leen wax ban doy doy ci ñoom ñaar seen gis-gis bu dee imaam Malik radiallahu anhu nee na miskin moo gën a aajo wa faqir ndax miskin mooy ko amul dara faqiir mooy koo xam ne am na waaye li mu am doyu ko kon ñoom ñaar seen wuute daanaka fa tabaarakallaahu ñoom ñaar ñëpp daal bokk nañ ci azaka ji ki amul dara dara waaye ak ki am na am na waaye li mu am doyu ko ñoom ñaar ñëpp moo xam ki amul dara dara mooy faqiir comme li imaam Shafii yi wax wala mooy miskin comme li imaam Malik wax ki am li ko doyul mooy miskin comme li imaam Shafii yi wax wala mooy faqiir comme ni imam Malik wax ñoom ñëpp am nañu as dañuy lekk azak léegi nag lan mooy alkifaaya lu doy ki amul lu ko doy lan mooy luy doy imam Malik nee na li doy mooy yow daal li nga denc ci sa dundu doyu ci at mi yow yaay faqiir mooy li ma am ci at li ma li ma denc ci sama magasin mooy mënuma cee dundu reen ba déwén kon azaka bu dikkee naa lekk nga la fonctionnaire yu bëree bëree bëree kon ci suñ jamono ji mën nañoo lekk azaka bu dee loola ak ñu bëree bëri daal loolu mooy alkifaaya bu dee imaam Shafii yi nee na alkifaaya mooy li ëpp ci sa dund dencoo lu ko matale dencoo loo mën a dundee li ëpp li ci sa dund loo mën a dundee ba 60 ans dencoo nee na loolu mooy alkifaaya bur bi nee na wal aamilina aleyha wal muwallafati qulub wal aamilina ak way liggéey ña aleyha ci azaka yi ñi koy liggéey nag jaraaf ji mooy kiy dem di dajale gàtt yi ak di jël sarax yi kooku mooy jaraaf ji ki koy séddale ca la bokk ci ñuy liggéey la bokkul ak moom kiy bind di note jëlee nañ ci diw lii nangam lii lañ jëlee ci moom nangam lañ jox diw kooke ci ña koy liggéey la bokk waaye itam kay jàppal jur gi jaraaf ji pour muy dajale kooke ci li koy liggéey la bokk ñooñee ñépp dañuy dañuy lekk ci azaka ji ñu ne waaw ki nga xamante ne moom mooy dajalee azaka ji wala mu bokk ci ñuy sédd la bokk ci bu fekkee ku woom lee la bay génnee azaka ñu ne waaw waaw mën na caa jël mën naa lekk waaye bu lekk la mu génnee léegi-léegi nag am ku ñor yore ñaari melokaan ci ngir imam Malik mooy bokk ci ki ñu ciy liggéey ba pare nekk ci faqiir bokk nekk faqiir bu boobaa day jël ci ñaari melokaanam yépp lay jëlee azak wal mu wallafati wal mu allafati qulubuhum ak ñi nga xamante ne dañ leen ciy jox pour bëgg ñu dugg si ci diine ji boobu nag imaam Malik nee na lislaam am na tedd nga tedd nga gu toll ne soxlaatul di campagne nit ak di ko neexal pour mu dugg si ci diine boobu moom génnee na ko moom waaye imaam Shafii saxal na ko wal muallafati qulubuhum mooy ki nga xamante ni itam dugg na ci diine ji ñu dimbali ko pour wan ko ne ñun kat dañuy dimbalante jàppale ko bu baax a baax loolu moom day continuer ba nëgë ni kon booy gis ñi nga xam ne ñooy lekk azaka kenn moo ko ciy lekk te du jullit mooy mu al mu al mu allafatu qulubuhum ndax dañ ko jox bi mu duggagul ndax mu ngi ay moromam dugg nañ ci diine te moom duggagul mën na lekk azaka ngir bugg ndax mu bokk ci ñoom moo tax wal mu allafati qulubuhum mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg a miinal seen xol lislaam wa fi riqaabi wa fi riqaabi ak ci uh, goreel baat léegi nag foofu bu dee ci imaam Shafii yi alal ji dinaa ñëw avant may ñëw sax dafa am lu ngeen di seetlu ba pare juróom-ñett laa waxoon ñeent yi ma njëkk a tudd lan la jalgatee lil fuqaraa wal masaakiini wal aamiliina aleyha wal muallafati qulubuhum ñoom ñëpp laam moo leen jar kon ñoom ñooñee mooy ñi nga xam ne bu alal ji tegee moo xam jëmale nañu ko ci ñoom moo xam jëmale ko ci ñoom ñoom dañuy séddu ñoom ñooy boroom laam yi mii na ngi dégg léegi da ngay gis ñeent yi des mooy wa fi riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabili wa ibni sabili yooyu yëpp fii lañu àndal ndax la atif ca fii boo ci gisul fii rek dafa atif ju lu ànd ak fii la ko jar yooyee pour ñoom ñu jëfandikoo ko day fekk alal ji ñu jëmale ko ci ñoom buñ ko jëmalewul ci ñoom du dem foofa loolu mooy différence bi diggante yàllaam jalgati ak la fi yee jalgati yàllaam ya jalgati ñooñee bu alal azaka ji ñëwee ñu tudd leen jëmale ko ci ñoom wala tudd ñu leen jëmale ko ci ñoom ñoom dañuy jël seen yëf waaye ñeent ñii may bëgg a tudd day fekk ki koy joxe ne foofu la jëm lu ñu préparé na fa la jëm mu soog fa man a dem waaye bu fa jëmul kenn du ko fa jëmale wa fi riqaabi mooy wa fi fakki riqaabi goreel baat boobu ñaar la moo di kii dañ ko not ci lislaam jàpp ko mu commencé di jotu wax ak sangam ne ko téeméeri junni sangam ne ko boo ma ko joxee danga nga libre su ko defee mu dem di ko jéem di kërti kërti bu boobaa nañ jël ci azaka ji dem jàppale ko pour mu jot imaam Shaafi'i yi wax na loolu bu dee imaam Malik dafa ne ak imaam Ahmad moo di li namm wa fi riqaabi mooy namm ñu ci kuy jotoo mooy dañ cee namm fekk koo xam ne dañ ko moom moom gu mat sëkk ñu jënd ko jënd gu mat sëkk mu libre am liberté waaye bu boobaa walaam ña ñooy nekk ne ni'amam moo di jullit ñépp du won ki génnee as du gé du won ki génnee azaka jiñ ko goreeleel ndax azaka ci ba mu xasee génn loolu alalu yàlla la kon moom moomatu ko kon bu boobaa jullit ñépp ñooy bokk walaat bi wa fi riqaabi wal xaarimiina mooy ak boroom bor yi ñi nga xamante ne waaye charte ba moo di day fekk ñu leb ko te la tax ñu leb ko nekkul ci xeetuk mooy yàlla day fekk ci lu dagan lañ ko lebee bu dee imaam Shafii yi nee na même buñ koy jël ci anam bu dagan lañ ko jëlee même donte financé nañ ko fu neexul yàlla dañuy bokk ci xaarimiina ji imaam Malik ne déedéet day fekk itam mooy l'islam day topp itam fan lañ dépensé alal ji est-ce que dépensé nañ ko fu neex yàlla wala déet foofu it seen wute la ñoom ñaar mooy il faut ñu def ko ñu financé ko li gayri maasiya imaam Malik ne balaa budda même bu ko financé fii xëyri maasiya kon day fekk mu tuub ba feeñal ak tuubam ñépp xam ko bëgg ko ko fayal bor du tax mu tuub waaw nee na bu boobaa bu ñu jëlee ci azaka ji mën nañ caa jël xam ni bu génnee mën nañ ko lor mënatul génn mënatul dem fenn ndax ay bor bu boobaa ñu jël ci azaka ji dem fayal ko ay boroom wa fi sabilillahi ak ci yoonu yàlla mooy ñiy jihaad seen wàccaay seen dund li ñu soxla ci financement mën nañ jël ci azaka ji finance guerre yi mooy ñiy jihaad ci yoonu yàlla imam malik ci loolu la sukkandiku ne jihaad nag comme wax nañu ko kon ki nga xamante ne mi ngi sàkku xam-xam nekk ci biir càkku xam-xamam nee na kookee mën na lekk azaka bu koy dimbali ci xam-xam boobu muy jàng ndax loolu itam jihaad la imaam Malik nekkoon loolu fii sabilillah la waaye itam fekk ab dëkk bu soxla hôpital amuñu fu ñu fajoo loolu nga tabax fa hôpital wala dispensaire loolu itam fii sabilillahi la amuñu école buñ jàngee nga tabax école wutal leen ñu leen di jàngal jënd ay livre loolu itam azaka mën na faa dem loolu itam fii sabilillahi la ñii de fa ñuy rootee ji sori na soxla neen am ndox nga bëtt teen loolu itam fii sabilillahi la kon nag ba fi sabilillahi sabilullahi yaatu na waaw <coughs> bur bi nee na wabni sabili juróom-ñetteel ba mu ngi noonu moo di doomu yoon olof ci baatu olof bi ni ñu ko tuddee ibnu mooy firi doom parce que ki tumranke tukki ne salaamaaleykum ci dëkk bi ana fa lañ koy askanale moom ñu ko askanale moom doomu tukki la mooy ku nekk ci yoon di tukki rek la arab da kay tuddee ibnu sabil mooy ku voyageur moom mu ñëw fi donte am na xaalis dëkkam waaye mën naa am carte bancaire am moo am problème wala boog amu fi fu mën a amee xaalis am na xaalis sax donte milliardaire la waaye amul nu mu utiliser xaalisam boobaa booba moom daggan na ci moom mu lekk azaka ci tukki boobu kon nag juróom-ñetti yaangoog sun borom ne loolee ngeen di joxe nag faridatan xaal muqaddar la mu nekk mu nekk dégg nga di farata minallahi bu bàyyi koo ci yàlla wallaahu bur yàlla alimun aji xam la mbindeefam ñi xakimun aji xereñ la ci ni muy tëralee ak ni muy doxalee ci ñoom ndax du juum kon nag ñooñu ñi ngi noonu bu dee imaam Shafii ak imaam Malik wax nañ fa ay seeni bunt ku ca dem yaatu na fopp trop ci buntu fiq ya léegi nag dafa am benn mbooloo ci naafiq yi daal di toog seen jotaay boo xam ne <clears throat> lu leen neex rek wax nañ ko ci yonent bi sallallahu lu leen neex rek ña ngi koy wax lu mel ne xeme waaw yonent bi ku sonnoon la sallallahu alayhi wasallam gaa yi ne ah maa jibril du ñëw ne ñoo ngi koy jëw comme moom lu waaye wax mu dégg ko am gaa ñu ne ah moom de borom moom benn nopp la moom benn nopp la loo ko wax rek gëm na ko mooy Muhammad daal ku njëkk ca nopp loo wax rek booy nga xam nga dem te xam ni dina réagir ci la nga wax moom daal benn nopp la moo tax mu ni wa minhum wa yaquluuna ña ngay wax wa minhum tukki na ci naafiq allazina ñoo xamante ne yuusuna dañuy lor annabiya yonent bi salaa salaam di ko ayibal di ko lor di ko wax lu ne di ko lor ci boppam di ko lor ci njabootam wa na ñuy wax bu ñu leen teree loolu ne leen bàyyi leen li ngeen di def ñu ne eh huwa moom de uznun benn nopp la <clears throat> qul waxal yaa rasulullah ne leen bu ma nekkee benn noppi laa itam nopp bi de nopp bu baax la nopp buy dégg lu baax la ko nopp boo xamante ne dibril da ci sotti wax yu ah wax yu moo ciy dugg nopp boobu baax na nopp boo xam ne du déglu lu dul lu baax kenn ñeme wala indi safaan di ko dugal ci noppam benn nopp boobu de bu baax la moo tax kul wax leen ne leen usunu xayrin nopp bu baax ba benn nopp bu baax la lakkum ñeel leen lan moo tax lakkum ji moo di boo ngeen ñëwee moo xam ne li itam yéen li ngeen di wax du dëgg ne dana day yëngal ba bere na ah waaw waaw moom kay baax na parce que taxaaful boobu muy def bu leen jàpp ni gëm na seen wax waaye da leen di suturaal moo tax kon xayrun ba tey lakum moo tax xulusnu xayran lakum borom nopp boo xam ne yóominu gëm na billaahi yàlla wa yóominu dana dëggal lil muminina ñeel jullit ñi ci lépp luñ ko solo laam gi dëggal lay àndal baa gi gëm ak xol lay àndal wa rahmatun yërmande la itam ci jëlle la gi muy def bañ a wuñu seen sutura li lazina ñal ña nga xamante ne amanu gëm nañu min kum tukkee ci yeen waaye yàlla nee na wallazina gaa ña nga xam ne yuusuuna ña nga dëkkee lor rasulallahi ndawal yàlla bi di sayidna muhammad lahum ñeel ne leen azabun bugal aliman gu mettal ñoom yaxlifoon na dañuy waatal billaahi ci yàlla lakum ñeel leen yéen jullit ñi ah dañ leen di waatal waat yoo xamante ne waat yépp lañ ca nam mooy li yurdukum rek bëgg ngeen kontaan bëgg ngeen kontaan rek ah neen li yurdukum ngir kontaan leen rek waaye xamuñu ni buñ dee wut ku kontaan wala ñuy wut mbég wala di wut ngërëm nañ ko wutee ci yàlla ak yonent bi moo ëpp solo dama tax mu ne wallaahu bur yàlla rek wa rasuluhu ak ndawam la axàqu ñoo yeyoo hmm, ndax ngërëmal yonent bi mi ci biir ngërëmal yàlla an yurduhu ci buñ gërëm loo ko in kaanu nekk nañu mu miin di way gëm di dëgg-dëgg ngëm alam yaalamu ndax dañoo xamul ni annahu naka luy mbir tey mbir man képp koo xamante ne yu xaadidi mi ngi juuyoo allah yàlla wa rasulahu yonente mi yàlla santaane lii nga dem féete fële fa inna lahu naka ñeel na ko naara jahannama safras jahannama muy ay pay muy muy ak pay ci moom xaalidan mbirum nekk muy muy way biyal di sax fiyaa ca safara sa su borom nee na zalika loolee doy na sëkk alxizu mooy di gàcce ga màgg la su ko defee nag bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge woon na bàyyi ko na Tambuk di ñibbisi naafiq yi da cee amoon fukk ak ñaar ñoo xamante ne dañoo waxtaan ci seen biir ba ba mu ba mu ba dëppoo ci mooy nañu éliminer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bu ñu nekkee ci àll bi comme ñoo ci digg àll bi bis bu ñu weetee ak moom rek mooy nañ ko jekk rek rey ko ba ñu demee ca barab bañ na àqala ñu dajaloo foofu ñoom ñëpp ñoom fukk ak ñaar yi di waxtaan waxtaan ba dëppoo loolu toog ñu ne ko comme mi ngi ñëw mooy nañu ko xaaru ndax kat ñaar kese la àndal muy Ammar ibn Yaasir bi nga xamante ne moo yore nosu gileemam di ko ko wamatal ak Suraaqatu na Maalik bi nga xamante ne moo nekk ci gannaaw gileem nga di ko di ko di ko màng ñooñu rek la àndal te ñun fukk ak ñaar nañu ñoom ñett bu ñëwee ñu ñoo leen kenn ku nekk ñett ma ñett ñu nekk kenn xuseyfatu bnul yamaan ma ngi ca mbooloo ma ci ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi yonent bi daal jékki-jékki woo xuseyfa fekk jibril xabaar na ko ne ko yaa rasulallah fee ngay nam ma jublu am na lu fa nekk gaa yaa ngi la fay tëru de yonent bi ne fa demal fee nga dóor seen giléem yi nañ jóg ñoom ñépp nañu dem fa dem ne leen jóge leen fi dem leen seen yoon a ah Xuzayfa bi mboññi ko yonent bi salaa salaam ne ko ndax def nga loolu mu ne ko waaw waaw mu ne ko est-ce que xàmme nga seen kanam yi mu ne ko kenn ku nekkee xàmmee naa leen yonent bi salaa salaam ne ko est-ce que xam nga ni rey maa leen taxoon a jóg moo leen taxoon a dajaloo foofu mu ne ko i lii dama koy wax gaañu ñu éliminer mu ne ko mukk su amee daa daañu wax ne Muhammad ànd naa ak ay aw nitam dem ba ca àll ba mu rey leen ëpp naa def moo tax Xuseyfatu bnu Yamaani moo tax mu nekk saaxibu sirri nabi sallallahu alayhi wasallam mu den mu ne ko dencal loolu boo ko gën yëg bur bi ne yaxzaru mi ngi wattandiku di ragal almunaafiquuna naafiq yi ñu ngi ragal an tunazzala bu wàcceef alayhim ci ñoom ci jullit ñi suuratul absaar boo xamante ne tunabbi'uhum dana xabaar jullit ñi bi maa la nga xamante ne moo sax fii quluubihim ci xolu naafiq ya ci nifaaq qul wax leen ne leen istahzi'u amrun tahdidin amru tahdid la mooy ndigal la xale bi lekk suuf nga ne ko lekkal suuf rek maa ngi ñëw if'alu ma shi'tum def leen lu leen neex loole mooy santaane boo xamante ne ñu ngi lay tëkku ca santaane ba ah istaziw inna allahan wér nekk ni yàlla muxrijun aji feeñal la mu dana génne maa la nga xamante ne tax ñee ngi yéen kay ragal de wala insaatam giñ naa ne njéem laaj nga leen ñoom di dañ daañu wax ne la la na lan moo leen taxoon a toog foofu boo leen ko laajee ya rasulallah daañu la wax di gàntalu ñun daal li ñu taxoon a toog demuñu mooy innama kunna naka ñun kat dañoo nekkoon naxudu doon xuus wanal abu doon foot di waxtaan rek di waxtaan woo xamante ni day gàttal sunu yoon kul wax leen ne leen moo àndax billaahi ci yàlla wa ayaatihi ak alquraanam ji wa rasulihi ak yonentam bi kuntum ngeen nekk tastasi una di yéjji ak di fo ah buñ bëggee ngàntal wax leen ne leen laa taataziru bu leen ngàntalu de yéen kat qad kafartum dëgg feeñal ngeen seenu baa baada imaanikum gannaaw seenu ngëm gannaaw ba ngeen feeñalee ngëm waaye itam feeñal ngeen ak kéeféer in yoo fa njéem baaleef na leen in yoo fa njéem baaleef na an taifatim ci kuréel minkum tukkee ci yéen ak sellalam bu boobaa itam nu azib wala tu azab tu azab def na mbugal taaifatun ak kuréel bi annahum sababu nekk ñoom kaanu dañoo nekk mujrimina di way bàkkaaru ndax sax gañu sax ci nifaaq sun borom mi nga xamal yonent beeg julli ne almunaafiquuna naafiq yu góor ya wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen ña ñoom de baaduhum lenn ci ñoom dégg nga ñoom ñépp ay dégg nga yaamuruuna dañuy sant bil munkar li ñu sib ah ah naa naafiq yu góor ya wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen ña baadoom lenn ca ñoom min baadi ñu nga tukkee ca lenn ñoo nuroo ci diine ñoo nuroo ci pas-pas ñoo nuroo ay jëf ñoom ñépp amul kenn ku góor ka ku jigéen kaa yam na dañuy santaane bil munkari lu ñu sib mooy dangay gis kenn ci ñoom day def ak ak ak ak lu ñu lu bon mooy alkufru wal maasi di ko dëkkee def di ko dëkkee def ba du ci yam ci boppam waaye da koy sant kenn safar mu def ko dañuy tere anil maarufi ci lépp luy gëm yàlla wala muy lu baax wala muy loo xamante ne dana jagal mbiru jullit ñi non seulement ñoom duñ ko def waaye dañuy tere ku koy def moo tax wa yaqbiduun dañuy ngëpp ay di yem hum seen loxo yi lànk nay lépp lu jëm ci dépensé ci yoonu yàlla dañuy tiitee seen loxo duñ ko dugal seen dërëm ñoom nasu dañoo bàyyi allah yàlla ndax ku fàttee bàyyi moo tax lépp luy wàllu yàlla ñoom teguñu ci seen dara dañ ko abandonné moo tax fa nasiyahum moom yàlla itam mu bàyyi leen mel ne ku leen fàtte ci yërmandeem suñ bor ak ñeewantam suñu borom ne innal na naka naafiq yi daal dëgg-dëgg hum ñoom na ñooy kàccoor ya dëgg-dëgg ña way génn topp waada del na waada dig na tëkku na allahu bur yàlla almunaafiqina naafiq yu góor ya wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen ña ak ñan wal kufaar ak yéeféer ya ñoom ñëpp yàlla tëkkoo na leen naara jahannama safaras jahannama sun borom nee na ñoom ñëpp bu ëllëgee dana leen lakk yóbbu leen ca safara waaw la doon neex sax mooy ñu mën a génn ca safara waaye ñoom xaalidiina way mbirum nekkam way sax lañu way biye lañu fiyaa ca safara sa ñu ne ah mu a ah hiya loolee kay mooy pay gu leen doy sëkk waaw doy na leen sëkk ak mbugal teg ca wala anahum rëbb leen allahu bur yàlla mooy sori leen ak yërmandeem wala hum ñe leen azabun bugal muqimun gu sax dàkk ñett yooyu mooy nekk seen pay yéen naafiq yi yéen daal nii ngeen nekkee ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ni nga xamante ni noonu la yéeféer yi ak naafiq yu njëkk ya nekk woon ak seeni yonente rek waaw moo tax anam ba ma leen mbugalee woon rek anam boobu ba léegi mi ngi fi noonu laa leen di mbugalee moo tax mu ne kallazina yéen yéen a ngi mel nag gaañ a nga xamante ne min qablikum jiitu woon nañu leen kaanoo nekkoon nañu ñoom de ashadda di gën a tar ashadda di ëppale minkum ci yéen quwwatan kattan ñoom de wa aktara ñoo gënoon a bëri ñeel leen am leen ci alal ñoom de ñoo leen gënoon a bëri wa awlaadan ak njaboot doon nañ ci xéewlu nag waaye ba xéewlu ga jeexee mbugal rek a ca topp tam ñoom fas tamtaxu dañoo doon bànneexu di xéewlu bi xalaaqihim ci cër boobee ñu am ci àdduna di ci xéewlu di ci bànneexu di lor seeni yonent yéen naafiq yi kon yéen it fas tamtaatum xéewlu leen di lor yonent bi ak jullit ñi bi xalaaqikum ci seen cër bi ngeen am ci àdduna kamastamtaa comme ni mu doon xéewloo allazina ña nga xamante ne min qablikum jiitu woon nañu leen bi xalaaqihim ca cër ya leen yàlla joxoon ci wàllu adduna yéen waxutum da ngeen a xuus ci neen xuus ci lor yonent bi xuus ci jëw yonent bi xuus ci ayibal yonent bi kallazi xaadu comme ñoom nañ doon xuusee ci seeni yonent bul wax kallazi comme na nga xam ne allazi ji borom lexmiraar nee na du ismu waaye xarfu mawsul la bu boobaa da nga koy taawil masdar wa awilan maa sillatin bi masdarin mawsula xarfin huwa kon que allazi xaadu da naan ka xawdihim comme seen xus ñoom suñ borom nee na ulaayka ñooñee xabitat yàqu na de mañoxoona amaaluhum seen jëf ya fi dunya ci àdduna wal aaxirat ak alaaxira duñ ci am ak pay yàlla nee na wa ñoo ñooñee hum ñoom rek kay alxaasir ñooy perte sa jëf jëriñoo woo ko àdduna jëriñoo woo ko alaaxira fa la perte yem nag waaw nga waaw ulaayka ji de ishaara bi waaw nga ne ah murtada ami nekk maarifa alxaasiruna xabar ji nekk maarifa rawatina demir fasl ba nekk fa ah loolu kay xanaa xasru la takk la kon xanaa keneen pertul ñu ne aha kay boo comparé pertu keneen ak pertu ñii da nga naan ñii rek a perte àdduna loo ci perte perte amaana nga mën ko dabu waaye dem ba àllaaxira doon yaakaar sa jëf yu rafet gisoo fa dara fa la perte nekk fii mën ngaa pert kenn du ko yëg nga nekk ci sa ruq rek di di di di di di di ming waaye àllaaxira ku fa perte ñépp a koy yëg kon ñoom rek a perte sun borom ne alam yaatihim xanaa da leen a dikkalul ñoom naafiq yi naba ullazina xabaaru gaañ nga xamante ne min qablihim jiitu woon nañu leen qawmi nuuxin nitu yonent yàlla nuux ya wa aadin giirug aad nitu yonent yàlla huud ya wa samuud xabaarug istuwaaru giirug samuud nitu yonent yàlla saalix ya wa qawmi ibrahim histoire nit Ibrahima ya wa asaabi Madyana ak nitu yonte Yàlla Shuayb ba di waa Madyan wal muttafikaat waa gol ba di Sadoum ak dëkk ya ko wër ñu doon jëfandikoo góor jëf yi borom ñaari tur ya nitu yonte Yàlla Luut ya yàlla nee na xanaa ñoom histoire ya xewoon loolu da leen dikkalut ñoom ñëpp atathum pourtant andiloo na leen rusuluhum seeni ndaw seeni yonent bil bayyinaati ay kéemaan ay layu leer naññ waaye fa maa ñu weddi ko yàlla alak leen moo tax fa maa kaana nekkul allahu bur yàlla li yazlimahum di tooñ leen walakin wante kaanu ñoom ñoo nekk yazlimuuna di tooñ anfusahum seen bopp ci toggoo gañ doon toggoo ay bàkkaar ak di lor seeni yonent suñ borom bu tuddee jullit ñi bu tuddee yéeféer yi ak seeni melokaan ak ña ñuy nuróol ak fa ñu mujj day tudd jullit ñi mu ne wal a way gëm ñu góor ñi wal muminaatu ak way gëm ñu jigéen ñi ñoom itam baaduhum lenn ci ñoom awliyaa u baadin ñooy way méngoo lenn ñoom seeni jikko moo di dañuy nekk safaanu naafiq ya ñoom de yaamuruuna dañuy digle bil maarufi ci lu baax mooy kenn kum doon ci ñoom day def lu baax di def lu baax di def lu baax waaye lu baax loolee mu yéene ko moroom mu jullitam woo ko ci ruq digal ko ko mooy yaamuruuna dañuy digle bil maarufi wa yanhawna dañuy tere anil munkar li ñu moom day tere day tere day tere lu ñu sib di ko tere boppam di ko tere boppam waaye mu yéene ko moroom moroomu jullitam itam di ko ko sant di ko ko tere wa yuqiima teg te ñuy sàmmonteeg di saxal asalaata julli yi juróom wa yutuuna dañu nangoo joxe azakata azaka wa yutiuna dañuy topp allah yàlla lépp lu mu santaane wa rasul ak yonentam su laay suñ borom nee na ñooñ ñooy jullit ñi de ñooñee ulaayika ñooñee sayrahamuhum salxat na leen a yërëm allahu bur yàlla inna allaha naka yàlla azizun ku not ci nguuram la hakimun ko xereñ la ci li muy jëf comme nag ñoom naafeq ya ak ak yéeféer yàlla di leen a am lu mu leen koo woon muy safara julli ñi am na lu leen yàlla dikk moo tax waada deel na allahu buur yàlla dig na almuminina way gëm ñu góor ña wal muminat ak way gëm ñu jigéen ña jannatin ay aljana yoo xamante ne tajri dana daw al anhaaru dex ya ñeenti dex yooyu dexu lem ba dexu meem meew ba dexu ndox ma dexu sàngara ba nañu ko jàngee woon ca saare suuf ya min taatiha tukkee ca suufi pale ya xaalidina mbirum nekkam ñu way sax fiiha ca aljana ya yàlla nee na dina leen fa préparé lu masaakina ak ay dëkkuwaay tayibatan yu teey yu neex te dal fii jannaati naimi ci àjjanay àddin muy jannaati àddinin ci àjjanay saxuwaay waaye ànd ak loolu lépp nag am na lu dàq lépp dañu wax ne yonent bi salaa sallam nee na yàlla bu xéewalee waa aljana xéewal ga nga xamante ne moom la leen fay jox day ñëw ñoom ñëpp ñu gis ko mu leen ndax kontaan ngeen ñu ne ko luy tee ñu kontaan àjjana ni mu mel ak xéewal gi ni mu neexee fa tabarakallahu waaye mu yàlla ne leen dinaa leen dolli am na lu des ñu ne ko est-ce que am na lu dàq li ñu nekk yàlla ne leen sama ngërëm gërëm naa leen te duutuma leen mere kon yërmaande bokkul ak ngërëm nit ki mën nga ko yërëm te doo ko gërëm moo tax suñ boroom ni wa ridwaanun as ngërëm noonu la ko góor gi daan firee ndax tanwiin ji tanwiinu taqlil la as ngërëm nga ne haa waxuma bàyyi ko ci diw ak diw de minallaahi bu bàyyi ko fa yàlla ngërëm lu mu tuuti tuuti bu fekkee ne ci yàlla la bàyyi koo sun boroom nee na ak bëru du moroomu leneen loo ko dendale rek mu sut ko akbar moo gën a màgg yal yàlla defal ñu ko moo tax suñu borom nee na zalika loolu ngërëm loolu zalika loolu huwa loolu rek alfawzu mooy texe ga al azima lu màgg la waaw yaa ayyuhan nabiyu yow ku ñu soloo ki jaahid jihaatal xeexal ak alkufaara yéeféer yi bi sayfi wal munaafiqiina ak naafiqi yi bi lisaani wal xujja waxlus na talal talal alayhim ci ñoom mooy na leen gëdd ërtal leen ndax ñoom wa mawaahum seen tàpp waaye ëllëg jahannama moo di naari muy safara te wa bi sa aka bon ba yéeme ci bon almasiru googulee mucc muy safara ñoom bu ñu xasee yonent bi ñu wax leen yaxlifuuna dañuy waat billaahi ci yàlla naan maa qaalu waxuñu li yonent bi dégg ñun waxuñu ko dee suñ borom ne walla xad qaalu dëgg waxoon nañu kalimatal kufri kàddug yéeféer kàddug gu leen di génne ci diine wa kafaru ba tax ñu feeñal seenu kéeféer baad islaamihim gannaaw ba ñu feeñalee seenuk lislaam wa hammu ñu yitte woon bi ma lam yanaalu ci loo xamante ne sottiwul mooy dañoo yitte woon rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci laylatul aqaba bi waaye nag yàlla nee na ñii daal li leen tax a bon li kese la nañu xool benn ayib lañu am wa ma naqamu illa an agneehum allahu wa rasuluhu min fadli mooy wa ma naqamu contre ñu jullit ñi contre ñu yonent bi nekkuñu di lor yonent bi lu dul lu dul ni lu dul ni illa an agnaahum lu dul ni moom woomal na leen moom yàlla yàlla woomal leen wa rasuluhu yonent bi lu mu yëkkati itam ci koom yi ak sarax yi ak azaka yi jox leen min fadlihi ci ngëneelam ci xanaa im yi jox leen ko ba ñu ne est-ce xanaa loolu moo tax ñuy lor yonent bi contre yonent bi bokk ah kon loolu mooy taakiidu zamm bi ma yushbihul mat fa in bu ànd ak loolu lépp njéem tuub nañu buddi ko ca nifaaq ba gëm dëggal yonent bi salaa salaam dëggal yàlla bu boobaa de yàqu moo gën yàqu dana nekk xayran di gën lahum ñeel leen waaye wi ñette wallaw ngeen wëlbati ku leen wëlànk bañ a gëm yu azib dana mbugal leen allahu bur yàlla azaban mbugal aliman gu métti fi dunya ca àdduna wal axirati ak alaxira ca safara te wa maa lahum dédi ñeel leen min waliyin benn aji méngoo bu leen di wattu aar leen fil ardi ci suuf ba musal leen ci mbugalum yàlla wala nasrin jéegul am jéegee na aji dimbali ba nga xamante ne dañ leen dimbali ba fegal leen mbugalum yàlla ñoo ngi bëgg benn jàng benn laaya boo xam ne wax nañu sababu nuzul bi ku ñu wax saalabatum saalaba la saalaba benn waay la woon boo xam ni di saala saalabatum nu xaatib dana nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bu ne taqoo moom amul foo daan gis yonent bi sallallahu alayhi te doo ko gis waaye mu gis léegi-léegi jullit ñi tiis tiis yi ñuy am ak yi nga xamante ne moo leen di gàllankoor ci wàllu àdduna mu ne yonent bi ñaanal ma ma am wërsëg bu rëy xaalis bu bëri laa soxla ndax lii lépp problème yi mën a jeex mooy taal ma mu ne yonent bi daal dama bëgg ku ma taal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bopp bu tuuti te sedd moo gën bopp bu rëy tey metti wërsëg woo xamante ne daa ca mën a respecté di conti yore ko ba pare di di xëy di jóg njël di dem di julli ji tisbaar jot ngay julli ji ci jàkk ja lu baax bu jotee ñu ànd defandoo ko di wéttali konte nee na wërsëg woowu moo gën nga am wërsëg woo xam ne dina la xañ lii mu ne ko rasulullah man loolu lu ma manti am lii duma ci jóge mukk sonal yonent bi rek yonent bi salaa salaam ne ko ah comme tëng ma tàllalal loxo yi mu ñaan yàlla yonent bi ne yàlla baddil ko saal ba as jur la yor dem jur gi jur gi dem ba xajatul ci dëkk bi waaw mu wuti aw xur génn dëkk bi léegi mënatul julli si euh, tibës ak gee mënatul jullee si fajar léegi tisbaar ak takkusaan lay julli si bu fajar jotee yonent bi ana saala ba ñu ne ko ah xam naa jur gi rekk ko téye dafa sori mu dem ba jur gi di bëri di bëri alal ji di dolleeku ba yéem ñépp ba xajatul foofu mu dem wuti ab dëkk boppam ca àll ba léegi mënatul ñëw julli si ak yonent bi kenn gisatu ko ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu yàgg ne waaw ana sunu waa ji saala ba ñu ne ko wuu kooku léegi moom borom alal la talatu ko ma ngi ca alal ja alal alal moom bu bëree rek téye ko ak sàmmonte moom dalay dalay dalay jafe ah yonent bi ne waxoon naa ko ko de azaka jot yonent bi salaa salaam yeble ne xanaa kon kii na am ñu jaar ci bani Suleym suñ fa jógee nañ jaar ci moom na mu joxe azaka bind ñu bind lépp yow bu ñu dem biñ àggee ci moom mu xool fooy bi ah ñeent fukki xar yu ne benn xar juróomi giléem benn xar nangam bi nag nangam daal di xool liste bi ne waa xanaa ki moom <laughs> day fay yu impôt wala ah man de gisee laa gis daal leen dem leen ba ma féex ba ba ba ngeen dellu si ñu dellu si ñëwaat mu leen man daal ba ba ngeen dem rek su ma kii rek dinaa jokkoog yonent bi dinaa ko yónnee naka gaa yi ñëw yonent bi di leen reye day leen ah. ana seen waaja sa àll ba ñu ne ah nangam ak nangam la wax mu ne yaakaaroon naa ko de ndax naa woon naa ko daal bopp bu tuut te sedd moo gën bopp bu rëy tey metti ndeysaan mu dem ndeysaan ba xelam yedd ko mu xalaat fa mu jaaroon daal di yëkkati la mu yëkkati ñëw di gur guri di ko indil yonent bi salaa salaam yonent bi ne ko ba ma la ko laajee joxoo ma ko woon soxlawu ma ko daa am loo yaakaaroon yaakaaroon sama bopp a tax déedéet soxlawu ma ko muy ba mu bay bopp bi ci suuf xalanku dara yonent bi salaa salaam jóge fi Seydina Aboubacar mu dem gàddu ndeysaan andil ko Aboubacar Aboubacar ne ko ah lu yonent bi gàdd delloo nan laa koy nan laa koy nangu mënuma kaa nangu Omar Aboubacar jóge fi gannaaw ñaari atam ndeysaan ak ñaari weer. yàggul ci xilaafa gi moom it mu ne ko hee azaka ju rasululay gàntu aboubacar gàntu ko omar du ko jël ba jamono ousmane ndeysaan ci la faatu buur bi nee na hmm? wa minhum tukkee na ci ñoom man koo xamante ne ahada wóllërante nag laaxa yàlla waat ne la in giñ naa ni njeem bu ñaari bu charte ak xasam daje dangay ngay xasaf jawaabu ba mujj moo tax ma naan la giñ naa ni njeem pour nga xam ne xasam ñëw na charte ñëw na lañ ataanaa njeem jox nañu moom yàlla min fadlihi ci ngëneelam wërsëg wu yaatoo yaatu giñ naa ni la na saddaqan na daañu saraxe wala nakunan na daañu nekk mina saalihina bokk ci ñi yiw ñi ñuy defar di dooleel diine ji ak lislaam waaye yàlla nee na fa la ba nga xamante ne aataahum jox na leen min fadlihi ci ngëneelam moom yàlla ana naka la ñu def ñoom kay dañoo lànk kàndaaral baxilu dañoo nay bihi dañoo nay bihi ca wërsëg wa ca ngëneel wa law ñu wëngee ñu wëlbati lànk bañ a topp yàlla ca lañ leen sant ci azaka wa mbir moom ñoom moo muriduna ñu wéy dëddu moo tax fa aqabahum fa aqabahum moom yàlla mujjal na ak mujj seen nifaaqan mu dig naafiq gu sax fii qulubihim ca seen xol ya mu nekk ak ñoom naafiq ga du ca jóge du ca jóge ilaa yawmi yalqawnahu ba bañ a dajeeg yàlla ba bañ a dajeeg yàlla yawmal qiyaama lan moo waral loolu mu ne bi maa ci sababu la nga xamante ne axlafu juuyu nañu ko wuute allah yàlla ndigalam maa ca la nga xamante ne wa adahu wa aduuhu daaloon nañu ko waxoon nañu ko wa bi ma ak la nga xamante ne kaanoo nekkoon nañu yu yekk zibuna doon ko nar alam yaalamu ndax dañoo xamul ñoom naafiq yi ne anna allaha naka yàlla yaalamu xam na seen seen i mbóot lañ la nga xamante ni waxaguñ ko génnee guñ ko déewoo ko kenn yàlla ne la xam naa ko wa najwaahum ak seen ndéey mooy la nga xamante ne génne nañ ko déewante ko ci biir wa anna allaha naka yàlla wóor na ne moom yàlla allaamul xuyubi mooy xamaa konu kumpa ya bur bi nee na allazina gaañ a nga xamante ne yalmisuuna dañuy jëw di ayibal almutawwiina min almuminina fi sadaqaati wallazina laa yajiduuna illa juhdahum fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum adabun alim naafiq yi da ci am ñoo xam ne billaay ñoo bon xam nga nuñ doon def bu yonent bi laajee dañuy jékki-jékki kee amul day indi ngay gis koo xam day indi ndeysaan benn as as koogu cereem wala boog as as ñaar dërëmam wala ñaar téeméeram ñu xool ko mu yàgg wagg a sant xam nga ne sa sa sa kooku cere boobu yàlla soxlawu ko de ñaar téeméer yow billaay waajee nay yor te fekk ne xamuñu amul nga gis benn waaj joo xam ne day indi lu bëree bëree bari ñu ne ah day njistal de nee na noon daal lañ nekkee yonent bi rek ku joxe lu bari ñu ne day ngistal ku joxe tuuti ndax amoo ko ñu ne cim moo tax mu ne allazina ña nga xamante ne yalmisuuna dañuy ayibal almutawiina ñuy coobarewu di joxe minal muminin tukkee ci way gëm ñi jullit ñi fi sadaqaati ci saraxa yi wallazina ak ña nga xamante ne ndeysaan laa yajiduna amuñu illaa juudahum dere seen dayo coona la ñu joxe mooy ndeysaan loolu rek lañu am fa yasxaruna ñu yëjj di sabote minhum ci ñoom yàlla nee na saxira dana fay fayug yëjj allahu bur yàlla minhum ci ñoom mooy yàlla dana leen ko fay yàlla du leen yëjji loolu la borom balaax yi tuddee mu shaakala wala hum ñeel leen azabun mbugal alimun gu metti istaghfir jéggalul ya rasulallah lahum ñeel leen aw la tastaghfir wala ba jéggalu woo lahum ñeel leen ndax xamal ni yàlla du leen jéggal in tastaghfir doonte jéggalul nga lahum ñeel leen sabiina marra juróom-ñaar fukki yoon du tax falan yaxfira du jéggal mukk mukk allahu buur yàlla lahum ñeel leen ndeysaan yonent bi ci mbaaxam mu ni wallahi bu ma xamoon ne bu ma rombee juróom-ñaar fukk yàlla baal leen dinaa ko romb suñ borom ne bi an zalika li tax yàlla du leen jégal bi annahum sababu naka ñoom kafara dañoo weddi billaahi yàlla wa rasuli ak yonentam bi te wallaahu bur yàlla yahdi du gindi du jubal alqawma aw nit alfasiqa ñu da way gën a topp su ko defee kon ñu yem foofu incha allahu taala lépp loo xam ne jaar na ci yoon yal na yàlla nangul ñu ko lépp loo xamante ne itam njuumte yal na yàlla jéggal ñu ko subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salaatan taftaxu lana biha abwaab alrida walqabuli waltaysir wa tuxliqu biha anna abwaab alcharri walmadarati walchaqawati walhalaaki waltaasir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin